nag jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw Idrissa Dabala Nabou Leye nag génn na ci kaso bi lu yéeme placé nañ ko woon sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ginnaaw nag ba ñu koy toppee ci lu jëm ci association de malfaiteurs complicité d'assassinat barbarie Nabou Leye nag jot na bénéficié wu ni ki démb ci alxamis bi ab liberté provisoire xibaar yi nag Seneweb jot na ko fësal ci source boo xam ne jege na lool bi les dossiers libération feccikat bi nag ñu tuddoon ci double meurtre ne moo amoon ci technopole di Aziz Dabala ak kii di Waly Gano ñu gën ko xam boobee jot na am liberté provisoire bu ñu sukkandikoo nag nag ki nga xamante ne maître mooy maître Souleymane Ndéné Ndiaye ak Gaydel Gaydel Ndiaye ñoo associé juge d'instruction nag dafa rendi ni ki démb décision Nabou Leye jot na génn ci kaso bi bu ñu sukkandikoo ci même suuf suuf te sax nag bari na loo xamante ne eh, am na ci dossier bi waaye daal dañu gis ne luñ ko doon toppee dara amu ci moom defu ci dara moo tax rek ñu bàyyi ko mu génn ci kaso bi. te benn Madiambal Diagne Madiambal Diagne candidat la woon ci candidat la ba tey ci élection législative yi moom nag boo moytu yoon dina ko teg loxo Les Échos mu ñu xamal plainte bi nga xamante ne rek Ousmane Sonko teg na ko tindoor du journaliste bi di njiital patron bu presse bi ci figure liste opposant Amadou Ba jàmm ak njëriñ la bokk acteur plainte bi nag jëm lu dul nag Ousmane Sonko jàpp na rek ne kilee daf koy sosal loo xam ne amul même source bi di ñu xamal rek ni tête de bu parti Pastef mi ngi tuumal mu ngi joxoñ baaraam surtout yenn ci cong yi nga xamante ni bari na lool te Mamadou kii di Madiambal Diagne di ko teg ci ci dam moo tax rek nag mu fas yéene yóbbu ko fi mbax na doone benn ginnaaw loolee ndax rek nag yoon mën a àtte kenn ku ne fi mu féete le quotidien nag di ci dikkaat dañu ko njiital groupe avenir communication nag moom tardewul benn yoon réagir nee na loolu ay moyens utiliser la ngir nag faagaagal ko waaye loolee nag yëngalu ko benn yoon ca pare na rek moom mi ngir wuyu ci date bi nga xamante ni moom lay wuy ji jamono jooje sax moom Madiambal Diagne mi ngi doon bind bataaxal di ko jébbal procureur de la république ngir joxe xalaat nag ci li nga xamante ni Ousmane Sonko teg na ko loxo